ndax nit nag àttan na lu nekk moo tax yàlla teel avertir nit àttan na lu nekk bu yàlla teelu woon a wax lii kon di nga dégg ku la ni sa law yàlla sama doomu ndijaay la ndax ñi ma yàlla rek dëgg la mhm. kon nguurug yàlla day xat waaw nee na góor gi Ahmed Cissé nee na bu loolu amoon nguurug yàlla day xat mhm. waaw moo tax <laughs> yenn saa yi sax nga dégg ko la ne ni ko Serigne Cheikh nettalee ca ko jóge Màkka ñëw nii yonent bi nuyu na la <laughs> waaw mu ne ko waaw nu mu sant yonent bi nu mu sant sant amul solo bu yonent bu sant amoon solo kon ñu ni Muhammadu nàngam la sant mais même dara ji ñuy wax sax du sant mhm. ay dara du sant moo tax muhammad rasulullah boobu moo am solo nuux waxul woon suñu borom inna ibni min ahli wa inna waadaka alxaq yàlla weddi ko nekk innahu laysa min ahlik innahu amalun gayru saalih kii nga jàpp ni sa doom la ndax dafa jóge ci sa geño mënuma compter ci moom jàppewuma ko sax sa doom moo tax il faut fair très attention honnêtement ku topp sant walla nga topp juddu ba sonnewoo sa bopp coono boo xam ne yàlla dina mën a compter ci yow bu ëllëgee di nga wéet sa borom foo xam ni sant du la fa fekk juddu du la fa fekk ah fala ansa baynahum Serigne Fadil Mbàkke wax na ko <laughs> loolu lu ama am am solo lu ñu war a bàyyi xel la kon amul nii laa sant taxul nga mérité confiance divine sunu borom diwoo ma jur taxul nga mérité ko diwey sama boroom kër taxul nga mérité ko imraata nuuxin wa imraata luutin kaanataa taxta abdayni min ibadina saalihayn fa xaanatahuma am na jigéen ñu nekkoon ci ci kappaaru ñu baax ñu yiw ñu yàlla wóolu waaye lañuy ñuy bokk-bokk ak ñoom ëtt bu ñuy yewwoo di fa yendu taxul yàlla mën a ci jigéen ñooñu le moo tax jigéen sax waaw imraat firaw jigéen maanaam nit dina nekk ak kilifaam te du ko xam nit dina nekk ak kilifa te du ko xam dafa dal sayyidatna Aïcha dafa am bis mu ñëw taxaw ci buntu yonent bi fëgg sallallahu alayhi wa sallam fëgg yonent bi ni man mu ne ko Aïcha mu ne ko man Aïcha mu ne ko bintu siddiq mani siddiq mu ne xamu muhammad mu ne ko man muhammad mhm. Aïcha yenu bopp bi daw puisque mënta tontu loolu fëgg kokkan la mu ni man a Aïcha Aïcha man mu ni doomi Abu Bakr kuy Abu Bakr mu ni mooy gorob Muhammad mu ni ko kuy Muhammad Aïcha fëgg na mhm, jot na loolu mooy mhm. xaal yi nga xam ni mhm. bokk na ci xaal yi jàngal Aïcha kan mooy yonent bi Muhammad sallallahu alayhi beneen bi mooy ba ba ba ko yonent bi yónnee puso bi ci biir néeg bi marax néeg bi lëndëm këris Aïcha dugg amul lumière ci biir néeg bi mu am problème fu nekk mu làmbatu fu mu ko tegoon gisul puso bi muy xalaat fu muy jëlee làmp yent bi xam ni Aïcha yeex na ci biir néeg bi yonent bi jógal jógal boppam bi mu ñëwee ni tëll ji muuri rido bi dugal bopp bi néeg bi mel ni jant fi fenk Aïcha nee na keroog laa xam ni ki ma amal affaire du jëkkër moo tax nit dina nekk kilifam te du ko xam moo tax teey baax mu ni confiance divine boobu yàlla tànnam intérêt du ko lal du ko lal xam nga bari na ci ñun ñuy yootu mbir ngir defar seen avenir suñu mbokk politiciens ñu baal ñu yenn saa yi nga nga topp politique bi ba egg ci fenn fi ni réussir naa lii laa doon wut jiboon na fi jiboon na fi li ma doon wut lépp am naa ko jiboon na fi moo tax yàlla kuy doy waar la waa léegi li nga doon wut lépp am nga ko léegi bi ko ñàkkee est-ce que di amaat courage yu taxaw ne li ma amoon lépp ñàkk naa ko te nangoo ko noonu moo tax yàlla intérêt du ko boole ak njabootam góor yàlla yi topp nañ ko ba aljanna sax dañ koo démystifier safara dañ koo démystifier yaqulu baadu saalihiin mal janna man naar la astanidanna alayha gadan wa aqul ij'alni fidaan li ahliha aw la abtali annaha aljannatu lu'batu sibyaan donc loolu la wax dafa démystifier al ni lan mooy aljanna lan mooy safara mu ni su ëllëgee dinaa wéeru ci buntu safara ni yàlla def ma njotu ñi nekk safara ñëpp wala ma ñëw reere safara si wala ma reere safara si ñu nekk aljanna nag mu ni lan mooy aljanna aljanna fowukaay la bu yàlla di naxee xale yi rek mais am na ñoo xam ne aljanna boolewuleen ak seen borom. xamuloo ni al ashratul mubasharuna bil janna ñoo la dàqoon a jooy seen diggante ak seen borom. te yonent bi woon na leen ni yéen yàlla woon na ma ni nit yi aljanna ngeen. ñun nag ku ci yàlla ni woon tey yow nitu aljanna nga. fa ngay jaaree yow tëdd wàccub liggéey. te ñoom. kanca ni nitu aljanna nga moo la gën a mën a jaamu yàlla. yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. da daan taxaw ba tànk yi sadd Aïcha ne ko xanaa du yow la yàlla gërëm ba pare lii lu ko fi jar mm-hmm. lu ko fi jar mm-hmm. yow yàlla gërëm na la bu yàgg ba pare mu ne ko afala akuna abdan shakura gërëm gi ma yàlla gërëm moo tax ma war koo defal lu ko kenn defalul hmm? moo tax yàlla tànnam juddu yoru ko askan yoru ko intere yoru ko mbubb yu rëy yoru ko rubba ashxasa axbar xaafil qadamayn nee na am na ñoo xam ni seen mbaxana jotul seen mbubb jotul seen dàll jotul te mbooloo mu ñu nekk lu ñuy waxtaane moom la yàlla yi déglu lu mu wax moom la yàlla déglu lu mu wax ñun nag mbubb yi lañuy màggal moo tax juxaa benn mbokk da ko fekk ci taatu garab yi mu toog mu ngi sañse sol dara ju rëy kaalawu kaala gu rëy mbokk mi ni indil ko lettre ni ko góor gi dooma ma baal rek jàngal ma sama leetar bi dañ ma koy yónnee te man jànguma joxaa ni ko nga baal ma de man itam damaa jàngul ngóor si di di xas joxaa yow sa toogaay bu jekki bi sa mbaxana mu rëy mi sa dara ju rëy ji nga naan jàngoo nii rek ngeen di def di nax nit ñi nàngam nangam. Hmm. joxaani ko bu ma xas kaay mu ñëw mu summi mbaxana mi ak mbubb mi ni ko solal mbubb mi ak mbaxana mi jàng sa solal mbubb mi ak mbaxana mi jàng sa leetar hmm. bu dee mbaxanaay mbubbay jàng leetar am ma abal la mbubb mi. yooyu amul solo moo tax Serigne Cheikh waxoon suñu mbokki avocat ni waaw seen mbubb yu rëy yi ngeen di sol bu ngeen dee àtte est-ce mbubb yooyu farata la mbubb yooyu bu ko maandu lalul lu muy jariñ lu muy jariñ uh-huh. iza tasayta fa innaha ziyu rijal biha tuhaan wa tukramu jërëjëf <laughs> Uh-huh. jërëjëf uh-huh. Uh-huh. dëgg la jërëjëf ayyadakumullah <laughs> jazakumullah jërëjëf mbubb mu rafet ak mbubb mu foo yooyu lay wax di la wone boo xesee ba doyadi mbubb mënta taaru mukk ba yëkkati la waaye boo xeesee ba xam sa bopp mbubb mënta woyof mukk ba suufeel la tànn suñu boroom te guul ci yooyu da koy soob rekk am lu mu gis ci yow bu dee ñun nag bu nit tànnee nag gis nga nit bu la tànnee tàccu la ñuy commencé njaalbeen gi <laughs> tàccu njaalbeen gi tàccu la mujj gën ak ay xeer la vive le président. Mm-hmm. ambale président. absolument loolu rek ngay dégg vive le président ca fan yu jëkk ya. en mm-hmm. bas président ca fan yu mujj yi. <laughs> bu yàlla tànnee nag njaal benn nga ay xeer la waaye mujj ga mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam ngay dégg xoolal anbiyaaw yëpp koo ci dégg ni salawatullahi wa salaamu alayhim nit yàlla yëpp koo ci dégg nii radiyallahu anhu mooy te seenu njàlbéen ay xeer lay doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ ko ay xeer ba fu mu jaar yaa ngi koy xàmmee trace deret ji ji ji muy bàyyi ci ginnaaw moo tax maa la afuuxu bihi jërëjëf jërëjëf liñ ko won laata muy dégg sallallahu alayhi wa sallam waaye keneen ku yàlla tànn itam di nga daj lu mel noonu dinañ la weddi dinañ la suufeel dinañ la gundu xatal dinañ la géttan dinañ la torturer moralement physiquement waaye yàlla ne la fasbir kama sabara ulul azmi min ar rusul moom la daan wax yonente bi ma wallahi la asbiranna kama sabaru inna kazalika najzil najzil muhsinin moo tax ñooñu tànn suñu boroom campagne du ko defar li ñuy wax campagne électorale mën naa tànn nit buy tànn walla mu bëgg ñu tànn ko mën na organiser campagne di wër di soow rek bu ngeen ma tànnee bu ngeen ma falee dinaa def lii dinaa def lii moo tax bu ñu la falee nga sonn ndax dinaa def ya nga doon wax waaw yàlla nag buy tànn amul campagne am na nag conseil constitutionnel boo xam ne bi ña nga ca kaw ala duratil bayda mm-hmm. am nay góor yàlla yu nekk ca kaw yoo xam ni ñooy xool dossier ñi yàlla war a tànn ñi yàlla bëgg tànn ku nekk ñu ubbi dossier teg bu ñu xoolee vérifier gis ni kii mucc na ayib ñu dóor caché ni'mal abd jël beneen dossier xool gis ni kii mucc na ayib ñu dóor caché ni'mal abd ku déggul ni'mal abd jooja ca ñoom kenn du la tànn <laughs> xam naa na ma kilifa yi baal rek foofu daan fa jaar rek jàll mm-hmm. Mm-hmm. mais ñu xam ni am na li ñuy tuddee xam nga ordre des avocats am na. Mhm. am na. ñooñu ñooy xool dossier yi foofu nag géej gu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatu la tepp tepp ji sax ëpp nañu bu dee nag nit a bëgg nit tànn ko lu nekk da koy daj dina sonn dina wër dina jaay dooleem dina jaay alalam dina jaay lu nekk. dinañ ko yekk lu nekk ngir rekk mu bëgg a dégg wiiw a dégg wiiw ñépp dégg la te suñu boroom nee na bari na ko siiw ci àdduna te bu ñëwee fii ci man kenn xamu ko mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf mooy li ñuy wax ni suñu boroom nee na bari na ku siiw ci àdduna te bu ñëw fii kenn du ko xam loolu musiba la nga dem àllaaxira ak say xoggu xoggu defe ni yow miin nañ la yàlla miin na la malaaka yi miin nañ la nga ñëw di présenté ñu la yow yaay kan yaay kan nga naan man la diw nangam nangam kuy kooku moo tax fexe ba ñu considérer la foofa mu am solo laa yazaalu abdi yataqarrabu bi binnawaafil xatta uhibba fa ida ahbabtuhu kuntuhu mu gàtt nee na sama sama jaam bi du deñ di ma jéem a approché di ma dragué yàlla dañ koy dragué ngeen baal ma ni ngay jigéen ji nga sopp ji nga nopp di ko dragué di ko woon yaay kan ba loo xam ne neex na ko rek boo koy seetee di nga jéem a mel noona bu la ne koppati rek a ma neex di fexe ba soo fay dem boo amul koppati sax di ko àbb won ko sa koppati bi bu la rek a neex di fexe ba lu jiin di jar nga jënd ko pour won ko ni ko ni nga mel rek laa bëgg li la neex laa mel yàlla itam dañ koy draguer ba jot ko yàlla nee na ku bëgg xam lu ma neex bëgg am sama cofeel jaar ma ci nawaafil yi ci nawaafil yi parce que farata yomb na mais ci nawaafil yi lay jaar xatta uhibbahu ba ma xëy rek sopp ko ni ko maay yow yaay man fa iza ahbabtuhu kuntuhu nee na ku dem ba yàlla ne maay yow yaay man nag loo defati man la boo waxee ma addu boo boo boo doxee samay tànk nga doxe boo jëflantee samay loxo nga jëflante boo xoolee samay bët nga xoole maanaam yaay man may yow ki yàlla ni boo waxee man la nag du bari wax ku yàlla ni boo waxee maa wax mm-hmm. doo bari wax moo tax moo tax ñooñu ñëpp du ñu bari wax bu àdduna doon tukki itam dañu naan waaw lu mu wax mu ni cell rek danaan cell rek waaw tukki ca àdduna itam du leen gaaw a yëngal am na ñoo xam ne tukkitel àdduna yëngalu leen puisque dañu woon yàlla ne ko dara safuñu nit dina egg ci xam boppam ba dey woon yàlla ni ko dara safu ko waaye koo xam ne kii bu ñàkkee depanse rek commencé xiin xiini saalit ku la ni sawaa nga ne waaye sawaa paa kañ tey moom sawaa paa yow kañ neel sawaa rek comme que koo wax mun la sawaa neel sawaa ibi tasim <laughs> qaala samaau muk fahirra qultu tasim ku ne asamaan si daa xiin nga ne ko bul faale yow muuñal rek ku yaram wi dafa metti nga ne ko bul faale muuñal rek yow daal sa sourire bi ci sa kanam boo ko fi feebar jële boo ko fi naqar jële boo ko fi ñàkk dërëm jële fu ñu la fekk rek muuñal mm-hmm. ibtasim mm-hmm. kun jamilan taral wujuda jamila ayuha shaaki wa ma bika da kun jamilan taral wujuda jamila mm-hmm. nee na boo taaroo rekk ci biir loo xool muy taar uhibbu jamalallahi fi kulli xalqihi xalifa mbay wax na ko fi démb uhibbu jamalallahi fi kulli xalqihi walaw laa jamaalullahi a aqilu am na koo xam ne kii lu mu gis taar lay gis ndax lan ndax bëtu borom bi lay xoole moo tax dara du ñaaw ci moom xamuluñ tableau daar bu ñaaw amul puisque la ca inspiré artiste ba rekk moo ci am solo kon fexe ba juboo ak sa boroom moo tax diine wàcc moo tax yàlla bind jaam bi moo tax yonent yi wàcc moo tax awliyaaw saalixiin yi jaar fi leneen lu dul loolu amul solo te ku fexe ba jubóog sa borom nag bu la nit ñi tànnee yàlla tànn na la bu la nit ñi tànnul yàlla tànn na la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aw yaa xayu yaa xayum yàlla